muy point yi amee yooyu bii boo gisee mooy sakkanal nit yi moom day toggee këri day toggee bax ndax giraar bi mobile la da ngay génne giraar bi boo bëggee toggee bax dugal sa bax si suuf togg boo bëggee togg këri nga teg giraar bi def sa këri bii mooy sakkanal mënoo moom tamit day toggee bax day grillage bi la day génn boo bëggee toogee matt da ngay dindi grillage bi ubbi porte bi def ci sa matt toog def toogee kër nga defar monté waat grillage bi nga def sa kër yi toog dana sakkanal daa war a tane fii mooy taaroo bi mooy furna taaroo moom tamit euh, kër yi rek lay toogee moom boo xam ne tey jii fourne bi boo demee ba muy yàqu cylindre bi rek mooy yàqu nga xam ne bi di nga mën a bàyyi fourne bi sa waay jël cylindre bi def ci artisan bi mu defaral la cylindre bi nga ñëw monté cylindre yëpp ñoo tolloo ñii liggéey euh, kii bi la ñoo tolloo nga dem jël yi cylindre bi rek ci artisan bi ñëw monté waat sa fourne kon na sa toog kii mooy fourne jàmbaar simple fii am na jeeg boo xam ne kilo 4 kilos ba 5 kilos lay am na jaboot kilo 7 kilos ba 10 kilos lay am na jongoma kilo 10 kilos ba 15 kilos lay moom tamit euh, dana sakkanal kër ba pare tamit gaaw na ci togg ndax euh, euh, li avantage mooy insert céramique bi nga xam ne moo nekk ci fourneau bi muy bant bi nga xam ne tey jii bu fekkente ni dala taawu añ mu tomb ci ba ba këriñ bi jaax euh, di nga mën a jël sa baara teg ko ci kaw moo ban bi mën a tomb sa lëwal ba ngay ngay ngay pare ak lëwal bi nga xam ne mën a xayma xanaa moom am na solo lool lool boo gisee bii tamit moom tamit jàmbaar la ba tey mais jàmbaar ak pied moom tamit euh, mu nekk pour bu am solo moom tamit maanaam am na bii. Euh, simple bi am ah, lii ay euh, bi am yëpp moom def am na 4 am na 7 kilos am na 10 kilos ba pare moom yàlla da ko may mu am sëñ bii kaw ak ànd yi ndax fourne bi moom moo gën a gaaw ci fourne yi moom tamit ndax euh, tey jii dafa am sëñ bii kaw nga xam ne tàngaay bi nga xam ne dafa waroon jënd dem moom toujours tàngaay da koy da des ci cin bi di gën a gaawal sa topp beneen ba ca topp kii tey mën nga ko toggee sa biir nekk sax bu la nga fa teg togg ba Euh, étincelle yi nga xam ne day génne bu dee cinq yeeg yeneen yi moom du ko defee étincelle bu di kii tamit du génn pour na bi moom man nga toog ci sa am waa sax nga ko dugal toog ci ku la neex <laughs> ndax moom dafa am sécurité beneen ba ci toog tant que li ngay gis nii euh, day tax pour na bi di teg tamit du mos a daam tey jii boo doon bon bu ëppoon bi day glissé rek mais du daam ndax tànk yi moom la àndal beneen ba ci toog tànk Euh, bokk na ci euh, dina yokk ci gaz fourne bi ndax euh, poids boo mën a teg ci muy jël bi parce que moom day supporter kilo ay vingt cinq kilos ay vingt kilos quinze kilos yooyu poids boo ci mën a teg na ko mën a supporter ndax tànkar bi mu àndal moom tamit fourne bu am solo la nañ gaaw commandé bii nga xam tamit moom mooy gàmbaar avoir moom dafa am bor ba pare tam napp moom lay moom boo amee ñaari mag mën nga ci togg ba sa togg di am te te te doo sonn te dana gaawal sa togg ndax incertain bi nga xam ne moo nekk ci biir puuna bi boo dugalee bant bi tàngaay boobu day jiitu bant bi tàngaay bant bi génne bi ñëw ci li ak li nga xam ne mooy tàngaay bant bi. beneen ba ca topp boo mën nga togg ba pare di ci am ay xal yoo xam ne bu fekkee ba nga bëgg a ataaya di mën a jël sa xal def sa puuna ataaya parce que simple na tamit mun a ataaya bii tamit am na mun a ataaya moom tamit soo toogee ci matt ba pare di nga mën a jël sa xal yi nga xam ne moom nga desal ci biir nga mën cee def sa pour ataaya wala sa ànd tuuraay nga mën a koy kon daal li ñuy wax ñu euh, naan produit bi nga xam ne moom lañ leen di dégg produit bu am am solo moom wax dëgg yàlla dina dimbali ci euh, nga xam ne mooy jigéen bi nga xam ne dafa nekk ci këram di togg bëgg togga toggam gaaw ba pare set ba pare sell beneen ba ca topp chauffeur bi nga xam ne mooy jënd gaaf ak yeneen i tam ak kilo euh, kër euh, yi ci toggam ajamal reer kii fourne yi mën am sa ñaari kilo doo mën cee togg sa aleen sa reer sa ndékki ba pare boole sa ànd doo tàqali toog xam benn yoon kon daal fourne yi ñu ngi leen di encouragé di leen wax di leen gaaw leen ngeen commandé fourne yi ndax fourne am na dana sakkanal koosu ba pare baax na ci suñ dana baax na ci suñ environnement dañu dimbali ci euh, toog bi nga ne tey bu fekkee dafa taxaw ci yeneen poudre yi saxaar bi nga xam ne moom moo leen di sonal nga ci la sonal ci biir kër ba kenn ku ne xam na ne saxaar baaxul ci nit poudre euh, yi dana togg gaaw na te amul saxaar daal lañ am yéen présenté bu fekkente ne am na loo xam ne président mën na ko jox wala euh, yeneen membres yi nga xam ne ñoo ñoo may ñu doon ko ci mu ñëw ku ne daal mën nañ ci wax tey ba suba.